Eh, mbër mi eh, ñoo ngi tok ak léegi ba léegi sama gaay yi ñoo ngi toog ak Bougana le ah, pensionnaire de l'équipe HLM mom lañ ñew seet ci tay ce premier combat dans l'arène kan nga beurel lay Bey numéro 2 bu nekkone équipe de Fass. Laye Bey 2 bu face waaw. wax mais fi aslem ak face sori soriwul. aslem ak face sori soriwul mais man instant bi ni lamb liggéey la. lamb liggéey la licence sincère buñu paré nañu nañu xamné sport la sport waru takalé dafa wara bolé ah, ah. comprendre nga man instant bii nii aw ak benn mbër xam nga ay non su ma la gisee boo ma gisul dama lay nuyu feeñu la parce que àddina noonu la làmb du ma naan dañ naan daan ak daanu ñoo ànd c'est vrai loolu lu wër la mais bu mbër daan mbër kee jàppe ko noonu déedéet loolu du àddina parce que liggéey la ut la ak ñàkk boo ñàkkee nangul boo amee nangul te xam ne yow li li li la tax a xam li la tax a am yàlla suñu borom moom moo ko dogal. sa combat yaag Laye Baye numéro 2 nan la demee. sama combat maag lay Baye numéro 2 comme lu ma la wax au commencement noonu la demee lundi la taxaw dimanche ma dem bëri ji ko. jour J dimanche la tombé la après ñu bëre ko bëre bu métti te kuraaga sax man moom jëkk na ma wër ndomb ma génnaat si wër ndomb bi parce que li ma doon bëree mbapat moom laa dem du yóbbu arène te alors ko foofu. loolu loolu loolu niveau yi bokkul. arène bu ñu la fa rek benn yuuxu la li ma déggoon benn ancien goulaar di wax arène benn yuuxu la bu bu amee rek jeex na bokkut ak mbapat ñuy xool ku daan ak ku daanu mun leen woowaat non non boobu dama ko ñàkk. sa diggante laay bi. sama diggante ak bi. après bi nga jógee ci laay bi ci nga am xel kom wala. non non dawalaat naa ci arena bi. nga bi. nga am kan. ma am góor fit. góor fit man bu waaw. fii HLM ak. ba tey déggoo ma garaawul te foofu laa jëkkoon nekk booy ma tiit ci combat bi ne ko góor am am nga komba de xam nga ñoom ñoo mag ci làmb ñoo mag fuuf ci làmb wala ma dem ñaaxu ko. jóge ci. mu jóge ci amaat xel koom. am xel koom bu bu bu sàkku xam bu sàkku xam-xam. boobu nu mu moom mu ngi dëkk HLM man maa ngi entraîné HLM. mu gis ma ne ma yow da ngay taxawaal rek entraîné woo mu ne ko ah bon mu ne waaw mu ne ko waaw kon baax na yàlla baax na. parce que daay xalaat di xalaat di xalaat ma ne kii wallaay maa ko dàq bëre te bu dee doole tam gëm naa ne man maa ko bu doole euh, ma dem salle di entraîner après ñu jox suma coach photo waa ji Diallo Diallo xool ko ne ma booy ma ne ah mu ma kii ëpp doole kii yaa mën li sincère que mooy bu làmb ji yàgg ma déglu conseil yooyu noonu bi ma ñëwee première fois signature ba Lamine Samba bi mu ñëwee taxaw gis ñu ñu taxaw mu ne non non non promoteur bi yow ñaar ñi nga boole lii du combat waay ma ne ko Lamine ma ne ko naam ma ne ko combat la sax de làmb la. ñaari yoon alfun fa alfun. jour si arbitre sifflé génn seen diggante. moo yéen arbitre bi ne preuve génn diggante bi ma réfléchir xalaat tak li ma jàll waxoon bu ko sori sës ka ma ko sës gëdd ko ma ko dóoree ma fayu. ma daw ne coppe tànk bi dëj ko. nga jël tànk bi dëj ko dëj ko waaw. bugaan bi ñu daan gis mbapat moom la ñu gisaat jour boobu. bu baax boobu moom lañ gisaat jour ñëw lépp fonctionné. dama lépp ñëw lépp fonctionné fonctionné tous bi dama ko gaawal lépp tuuf ma gaawal ko bëre bi noonu même bu ñu dajee sax dama koy xool bëtu ay yow gaawal ma daan la mais moom. nga jàpp ko daan. taxawul sax. bi nga fa jógee après nga bi ma fa jógee ma am ndongolo. ndongolo waaw mu daan combat choc combat parce que da nga bëri aussi ay combat choc. ay combat kese nga bëri kese. kese billaahi. nga boobu noonu tam neloo naa parce que lu tax neloo naa mooy nit kenn du ko xeeb. te dama ko xeeb te boobu daanoogul. te boobu daanoogul merci après ñu daje din ya man ak moom di entraîné na ne ko boo yow laa am yow man ngay bëreel xam nga ma. mana mau ayo lah beri laa bëreel et puis léegi nag ma ne ko man ngay bëreel xam nga xam nga affaire mbër la comprendre nga aussi tam ma defaat ko même action mana li ah li may continuer après jàppe lamb ji tam entraînement ak doole dem bëri lamb lépp entraînement la ak bëri man doole la man su ma amul doole du ma du ma bég gëmoo gàllaaj xoolal dama don dama don dem gate, fajar nyosal, saal ngoon gi ma demat contact lol moo ma No, jaru may dem di wuti ay serigne yoy non wol na sama bop nga dem ñak ma dem ñàkkaat ko. am do joge ci ndongulo am am euh non non non ki la amoon toog naa wat ak ki suma ma nu mu ci Giro Seras. Giro Seras Giro Seras waaw. non bebeta la nga jëk a bëre. non mosuma bëre ak bebeta la. bebeta la le non non. non non ma ngi jaawale bebeta la ndongulo la won wa ma ngi jaawale nga bëre Giro ñak wa non Giro ñak ñak mo de. sa diggante sans verdict la. arbitre di leer na ko. mujj déposé ko. bu ma ñàkkoon. wallaahi du ma toogaat fii nii ci sama bàmmeel laa nekk naan naan dama ko naan ñàkkuma ko. déposé recours. déposé ma recours parce que xam naa ne loolu noonu may sànni fële na la am na fu mu xaj mun naa ko jox jàmm yàlla mu dundee ko. parce que parce que tamit jël bi am na lu jaxasoo benn instant. ki ngay bëreel ki ma doon bëreel moom sentir na ndax ndax moom daan wala daanul. après bi nga jógee ci giro. xam nga loolu moo neex ma jógee ci giro ba léegi bëriwaatuma. léegi nag lu waral lu waral loolu aussi mu ngi si lenn reculer xool lan moo tax soo demee di jànkonteeg say adversaire duñ la ëpp doole te saa yoo demee am ay jafe-jafe. parce que que yow yaay mbër moo xam ne mosoo taxaw ci géew meeku ñu ne entraîné wu. déedéet saa yoo taxawee ku la xool day xam ne kii day rey boppam ci entraînement. merci beaucoup. man eh, bugaan mën nga bëri. waaw sant yàlla résultat yi. résultat comme li ma la wax rek. résultat jàppee mu woon làmb xam nga am na leneen lu ci làmboo. dama jàppee woon doole. dama gëmoon làmb doole a bëre mën a bëre. am fit na leneen. am na leneen lu nekk leneen loo loo xam ne da nga ko daan sàggane. merci beaucoup muy instant bi. instant bi mun naa ne alhamdulilah comme li ma la wax en commencement xel mi dal na alhamdulilah rabil alamin laay wax dañ mën a dugal demal dinaa dem ba ñu xam ne man mi ñëw naa. pour bu saf sap. Bougane est de bu saf sap euh, mbër mi. waaw instant bi man li ma bëggoon xam mooy potentiel adversaire bu Bougane kan xam nga làmb boo sutee ne euh, dama soxla kii wala dama soxla kee xam nga lan lay jàpp da nga dem ci sëriñ lu bañ ne kii baax na wala déedéet. yow tolloo ko foofu. merci beaucoup. mais da nga da nga am ñoo xam ne ñoom nga war a mën a bëre. pour l'instant nii pour te dire li gën a dee au commencement xam nga lu ma lu ma doon def kuñ ma jox baax na loolu laa dikkee waat. instant bi fan nga jëm. ku ñëw rek baax na. man gëw ma loolu ku ñëw baax na gëw ma loolu. billaay wallaay man dama jàpp ne Bougane am na ay adversaires yoo xam ne ñooñu la war a mën a bëri. adversaires yooyu noonu boo leen waxee du yàgg ba ñu ñëw ne naa nga man tey jii su ma la nee su ma diggante ak ndongolo. su moom moom moo ma gën a sax. reer boo xamante ni ñu ma koy tegal dibi wala ginaar. revanche sa diggante ak ndongolo. merci beaucoup. revanche bi dafa jot. sëkk ndongolo Bougane. <laughs> est-ce que dina moom. jël suma koy daan damay reetaan sama lepp dama koy reetaan. donc waaw. instant bi da nga paré pour le pour la revanche pour xamné ni la koy daané combat bi taxaw nga xamné ni nga koy daané ni la koy daané wolu nga sa bop de. yow amul taxal ñu wax lam boy dem ti wóoluwoo sa bopp xoolal tekki sa ngem nga dem xoolal bu dee yor nga doole nga dem port dem bara ñing wala nga dem ci marché bi yéenu ji ay saaxu pile ñu sànni ko pile nga pile ko def ko ci camion yi. est-ce que du fit bu rëy bi moo lay gaañ. waaw góor fit lañ wax. mais fit bu ëpp da lay bi mi nga maam yi li taxoon ñu doon avancé doon jël tool gëlëm di koy gajji wala dem fu kenn dëkkul ñu dëkk fa fit a woon loolu noonu ba ña fekk leen fa waaw man lépp lu may dem su fit laa si demee moom laay jiital. Euh, mbër mi yaa ngi euh, ci ah? mhm. ma ne yaa ngi euh, benn tali ñaari tali. Euh, grande Dakar question bi yow bokkoo ci euh, kan moo fi daax bëre. fii fii ñëpp a ba ñëpp a mën a bëre. kan moo fi daax bëre. ah ñëpp a mais man de am na ñoo xamante ne c'est personnellement man mun naa ne man maa leen jàngal bëre. waaw mais yow bokkoo ci question bi dama jàpp dama la laaj ñan ñoo fi daax bëre kan moo fi daax bëre. fii ki fi daax bëre mais kii soog a door moo fi daax bëre ah mun naa ne ci xale yi taq taq ngeen te bëree guñu arène ah boo limee da ngay jum booy booy bëri nañ de. si ñi bëreegul wala ñi ñi bëre yo nga yo mbeuri ñi bëre nii ni ni ku fi dàq bëre salum Saalum mo fi dàq bëre salum Saalum waaw salum salum sama sama mag mo fi dàq bëre mo fi dàq bëre mo fi dàq bëre salum mom sa mag la wala sa nijaay la wala sa papa la wala sama mag la parce que ba may ànd ak mom muy bëre ji Esat Assane Diouf nekk guma mbeur bobu yaakar na ni yag na muy bërek ñom boy sey bokku na ci li tax nga doon mbër na ci li tax mo doon mbeur bu ko tafaatin di dëkk mbapat Kolobaan euh, mu naan ko du ma sa morom yoo booy boobu Saalum bu ñëwoon Assane Diouf kullu bawol bawol Saalum Saalum la doon supporter billaahi mun buy ñëw si mbabat bi juróom du ko yor mais buy ñibbi mun na ñibbaale deux cent mille francs loolu leer kon Saalum Saalum moo fi daax a bëri léegi sama question bi ci topp mooy làmb ji wërngal këpp kan moo fi daax a bëri question bi nag yow bokkoo ci. làmb ji wërngal këpp Eumeu moo ci daax a Eumeu Sène moo dàq bëri ci làmb moo dàq bëri ci limal sa top 5 juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji Eumeu Sène ak. Eumeu Sène Saalum Saalum euh, Tafa Boy Bambara ay mbër laa lay wax de. ñëwal ay mbër kaamil nga fi lim. ñaa ngi dégg baax a baax.